wa tuxliqu anna biha ababa shar wa taasir wa taqdi lana biha jamia alxawaïj wa takuna lana biha waliyan fi dunia wal axira anta waliyuna fa nicma almawla wa nicma alnasir أيها المشاهدون الكرام في داخل السنغال وفي خارج الوطن نرحبكم كالعادة في كل يوم الجمعة ونقول لكم مرحبا أهلا وسهلا بكم ها نحن اليوم في انتظاركم بدقة وسرور وبعد نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk ñu ngi leen di ziyaara ci àjjuma ji fu waaye ma ne ñu ngi di ziyaara kilifa diine yi kilifa aada yi di ñaanal yàlla jàmm ju sax dàkk fu waaye ma ne ci réew mi yàlla na ko yàlla defal jàmm gàmm gi ñu jógee liñ lépp luñ ci def ci xeeti jàmm yàlla ak xeeti yiw yàlla ñu ko yàlla nangul bi ahsanil wujuhi wa ma dalika ala allahi ñuy siyaare ñi nekk ci hôpitaux yi wér di di leen ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla may wér waaye di ñaanit sunu réew mi muy Sénégal ñu yàlla na fi yàlla saxal jàmm lépp lu yàq yàlla ko fi yàlla dindi lépp luy indi fitna yàlla ñu ko yàlla ràndalal lépp luy indi jeexi jaax ci diggante way nit ñi fi yeewoo yàlla na yàlla tàppe xol yi ba ñëpp ànd nekk benn déggoo gi gën a naat sunu biir bi jaahi sayyidil wujud waaye ñu ziyaare ñu nekk bitim réew di daan seen doole bëgg lu ñu di seeni njaboot yàlla na leen ko yàlla yombalal bi ahsanil wujuhi mbokk yi ñu ngi dellu si di leen ziyaare ci àjjuma ji waaye mën na ne di leen xamal ne incha allah ñu ngi ànd ak ci numéro yi comme ni ñu doon defee saa su ne ci numéro yi ñu 88 628 22 22 bu dee waa Sénégal waa bitim réew ñu mën a ànd ak ñun ci 0 221 33 cent 22 99 00 221 33 841 22 99 incha allah. Euh, lu ngeen bëgg laaj ci numéro yooyu mën ngeen ànd ak ñun indi seen lu ci waay bëgg la allahu nahnu maakum ala kulli xaal amma yataallaq an al asilati wal ajibat euh, su ko defee ñëw ci bataaxal yi nga xam ni fekk nañ ko fi mën a xaarandi askan wi ci numéro yooyu nga xam ni baaxee nañ leen ko muy numéro bi ñu dimbali ñu mën a jokkoo bu baax Euh, su ko defee ñëw ci bataaxal yi xaarandi askan wi ci numéro yi euh, am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko te ñëw salaamaaleykum wa rahmatulah. aleykum salaam wa allo. allo salaam waaw soxna si ñu leen di ziara. ñoo delloo ziara. alhamdulilah. jàmm rek kay man damaa bëggoon laajte ay gént. Mm-hmm. dafa am gént bu ma gént. Mm-hmm. gént bi ay kii laa ciy gis mbar. ay. bar bar. bar. waa ak ak ak kii loolu niroog bar te ñu koy te séeréer yi di ko rekk lii mbët mbët waa ak beneen bi nga xamante ne ci dëkk àll bi nga koy gis day mel ni kaña te muy daw daw yu gaaw mhm. boo ko gisee rek mu daw bu gaaw mais yu ndaw laa ci gis lu mel ni comme ay ay kii comme comme kii jinax yu sew mu def ay saam-saam mhm. waaw xam naa su ma ne àndaata ñu waaxu mën àggale li laaj ñu koy xaar ci numéro mën a àggale laaj mu laaj ndax li kulli xulmin mabdaun wa intiha ñu xaarandi askan rek ñu su ma ne dugg indi ñu ba mu mat dina baax loolu daa ñu ñëw ci bataaxal bi nga xam ne fekk nañ ko fi mbokk mi di ko laaj day liggéey bari ci machine boo xam ne bii daal ay yére lay defar bari aana nag lu nga gis ay yére yoo xam ne dafa bari euh, ñu da ko def ay conteneur di ko ranger walla di ko def ci ay kees mu nekk ay yére yu bari te yëpp dafa bees comme que bari na lu muy farataal di ñëw ci géntam mu bëgg a xam euh, ndax yére ak yu bari yooyu ma bayaanu zalik قلنا ذلك مرارا وتكرارا وسنكرره إن شاء الله الصوب القديم خير من صوب الجديد في الحلم yére bu màgget te yàgg lool moo gën ci gént yére bu bees الصوب الجديد يدل على صعوبات عديدة يؤدي إلى فتح ويسر في حياة الإنسان gis nga bees day indi xat-xat jafe-jafe ci wàllu am amam ci wàllu yokkateem am bu màgget bi daal moo gën ndax boobu muy gën a tegtale yiw ak xeewal buy ñëw ci nit eh, nañ ci bàyyi xel eh, su ko defee eh, dañ koy digal rek ne ko mu génnee sarax sarax bi nag mën na nekk min anwaain mutaaddida ci fan ñëpp mën nga togg ñam yu sell woo ay jullit jox leen ko Euh, mu nekk loo xam ne li wax dëgg yàlla dafay am solo euh, mu nekk nag ñam boo xam ne dafa baax ci toggin bi ak defarin bi ndax euh, ci la aju gu faju nekkee ñi ñëw ci beneen bataaxal bi allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah leen di yàlla yàlla nangu ziar bàyyi leen suñu kanam. dafa am ki gént yu ma gént keroog dama gént benn jaan. jaan bi mu ñëwee nii daal taxaw nii ma taxaw taxaw daal di koy tiim bi ma ko tiimee nii nag. jaan bu mag la wala bu ndaw. jaan bu yem la rek. bi ma ko kiiyee nii après léegi mu def ni am daal di may xaw a cof nii ci loxo bi ma cofee nii ci loxo daal dem. ma daal ñëw taxaw ma ne ah jaan ji de màtt na ma waaye bu ma màttee génnewul deret mhm. après ma daal dem ci sama kii bi ma ne nañ nii nii nañ leen jël ordre pour lugg ko muy déedéet sama mag bi ne buñ ko lugg nañu dàmp sa yaram bi nii rek ñu daal am ay lu muy tari nii def daal di koy kii. Mhm. après man may bës ki ma màtt ki ma kii cof noonu cof na ma mais yëgu ma ni cof na ma daal. Mhm. pour man maa ni man maa ni màtt na mais yëgu ma métti na yëgu ma dara. ma daal ci beneen guddi gi gént ko mu jaan ji nekk di walla walla bi daal di xees ba jaan jur kii daal xees la nekk ci kii daal tax nga gisaat beneen jaan ci guddi gi beneen guddi gi laa ko géntaat daal ci beneen mhm. guddi gi ma ko génte jour boobu géntaat naa jaan ji daal mu kii nii daal mu muy wallax wallax nii rek taxaw ci sama kanam noonu mhm. waaw après bi ko génte noonu nag ma daal géntaat naa tam ñëw Sénégal bi may ñëw nag mu am ay yuy wàcc daal sama mag bu gaañu ñëw di ma gunge ñu dem ci kër gi bi ma gungee dem ci kër gi mu ñëwaat gis sama dafa gaañu ci biir kër gi ñuy ñëw bi ñu ñëwee nag am am na luy nekk ci samaan si di génn ma ragal ko bi ma ko ragalee nag moo ay niir yoo xam ne muy wàcc ay glace di wàcc ma ni jàng leen sindi di jàng leen sindi jéeg te ngeen bàyyi seen wax ju bëri jàng leen lii di wàcc ni dama ko ragal après asamaan si di def ay nuages noonu nii yi daal dafa mel ni café bi moo nekk comme café la mel daal nekk ci kaw nuage mais damaa ragaloon mais maa ngi naan jàngale am naa jàpp maa ngi jël sama kii ma jàng sindi di. Mhm. waaw loolu laa gëstu keroog tam génn benn avion buy naaw nii di dem ci kaw. avion buy naaw. waaw avion dama ko gis muy naaw jëm ci kaw. avion. waaw. gis mhm. muy naaw jëm di dem. Mhm. waaw yow laa pour moment bere na waaye ma bàyyi ligne bi daal pour ñeneen ñi parce que day. waaw incha allah jërëjëf. bu amee ay sarax nga digal ma. incha allah jërëjëf. incha allah ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñu yendu jàmm. jërëjëf incha allah dañ ñëw léegi ci kanam incha allah shukran ala kulli xaal sa bi bayaani haulaa il ahlaam euh, ñu xaarandi askan rek ci numéro yooyu comme ni ñu ko waxee woon léegi ñu ñëw fi ñu toll woon ci bayna sawbul qadim wa sawbul jadid yére bu bees daal comme ni ñu ko waxoon sànq baaxul bu màggat moo ko gën ci gént laysa euh, waxidin xel ah, mbokk mi moom it yónnee bataaxalam mbokk mi ne dafay gént moom gis koo xam ne kii daal dafa génn àdduna ba pare euh, mel ni daf ko feeñu di ko ñaan xaalis di ko ñaan ñaar téeméer nee mu génne ñaar yi jox ko muy laaj ma bayaanu zalik ñu jël ki ci ligne te ñëw salaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam si yow yaa mhm. mhm. dama amoon gént yi ma bëggoon mhm. am sama doom bu xamante ni ci juróomi at yooyu lay mais damaa gént keroog mu mel ne dama ko solal benn pantalon. am nga ko tamit mi ngi mais mu jékki-jékki man comme picc biy yàqu noonu la muy def élastique yi di jékki mu daggatoo. Mhm. mu daggatoo wee maa ngi moom ñoo tëddoon ci lal bi man ak moom kese léegi bi ni ay a sew yu weex tàll boo seetlu sax da bi mu sol bi mu daggatoo wee tubay bi. mu nekk lal bi man ak moom. waaw des tamit ci yaram bi ni ma koy faxasal sax moom dinu yow naan maman sax yi tax na sa kaw mais yu ndaw ndaw yoo xamante ni boo seetlu da ngay defee ni élastique la mhm. ci bu ma bee ni muy def mhm. waaw beneen bi tam bii sama doom bu góor la ñoom damay gént mag la di am na fukki atam bu topp mais damay gént ma di ko couche ma di ko ñu ngi dem euh, couche ki ko takkal couche comme bébé yi parce que dafa doon dem àll ci couche bi daal mhm. léegi su ma ko dindee balaa maa couchaat beneen couche nu mu defaat. day dem àll. Mhm. waaw ci couche bi léegi ma affaire bi jaaxal ma ma naan ne naa naa naa wax la ko. Mhm. démb ci guddi tamit. Mhm. damaa gént euh, euh, yore benn kurus. xaw ma dama ko doon jënd xaw ma daal nan la nan la nan la kurus bi dikkee sama loxo mais ki ma koy jox mi ngi naan sa yaay moom moom euh, kurus bi. mu di ko kër yi mu koy nase ne kër xam naa dafa dafa cher. mu nas ko ba pare course bi manqué bopp loolu ñuy jàpp noonu pour ba euh, bëggee xam fu course bi commencé ma ne ko ana mu ne ma daf ma koy jaay 33 la ma koy mhm. yow sa bopp course bi kese xanaa danga koy wàññi. Mhm. mu ne maa yow waxal la ma ne ko ma 10 000 laa la fay mu ne ma 10 000 du ma ko defalee boo mënul 33 mille nga yóbbu course bi noonu kese. baax yooyu laa amoon ñu ma bëggoon nga leeralal ko. baax na dinañ ci ñëw léegi incha allah shukran. jërëjëf. shukran ala kulli xaal sanaati bi bayaan incha allah ñëw euh, ci mba dafa gis frère am wala boog magam wala rakkam boo xam raxala ila jiwaari rabbihi munza qadimi zaman fa ataahu fa ataa wa aata ila hadihi almali miatayni gis nga kii nee na bu góor wala boog rakkam dafa génn àdduna waaye mu feeñu ko jox ko ñaar téeméer mu mu jaaxle ci lool muy bayaanu zalik nit ki bu génne àdduna feeñu la jël dara jox la am ci wàllu xaalis ak yu mel noonu dañ isaaratun teg la ala an nekki eh, togg ay ñam génneel ko sarax li wajhi llaahil karim mu génneel ko kooku ko jox ñu te nga xam ni eh, raxala ila jawaari rabbihi eh, mu war a jël ñaar téeméer yooyu ndax mu togg ci ay ñam wala soo ko mënee def aksar min zaalika mu jël xaalis daal ci gàttal toggal ko ay ñam defal ko sarax mu ko nag ndax euh, ñaan kon muy sarax yi nag sopp nañu masalan su dee ko xam ne kii dafa génn àdduna nga defaral ko ay nga def ko benn dànk ko doon ñaanal benn ndax yi ñooy dugub bi ñeen ak benn lay mu nekk sadaxa waasila muttasila ila alladi euh, beneen bi ci tegu ñu ñëw ci mbokk mi ki jëkk woote léegi neen dafa woote moom di laaj ne dafa gis mbët Euh, bar ak mbëtt la gis ak loolu ñuy olof di wax xojog mooy rab yu tuuti yooyu te gaaw mu gis ci yu bari bar mbëtt xojog euh, yu façon rab yooyu du lu gis kasiran li mbiri rab ak mbiri faru rab ak mbiri àndandoo du lu gën waxoon nañ ko fi nee naa leen euh, bar mbëtt onk xeeti mel noonu yépp ci xeet yi mbir rab lay bokk nañ ci bàyyi xel waaye dañuy digle toujours rek nit ki balaa tëdd daal li yakuna zalika xijaaban mastur fi xayaatihi aw fi manaam fal yaqra hadihi sura alkarima asharifa wasamai wa taarix wasamai wa taarix nag euh, suñu sañ xijaaban mastur lay doon maanaam kiiraay gu mag lay doon ci dundu doomu aadama nañ ci bàyyi xel dina la dimbali ci sa dem ak sa dikk ak sa toog ak say nelaw ak ci dafa am solo lool hazihi sura al karima al sharifa beneen bi ci tegu mbokk mi ne dafa gént ndaw maam benn bu ko ci mën a xaw màtt tuuti ci loxo neen waaye gis na it ci ëllëg sa ay yeneen muy ñaari yoon jaan ndaw daal su baree njaboot la su dee benn benn benn doom lay tegtale daal wa ala kulli xaal du bon baax na su la sax eh, te muy jaan yu sew te tuuti eh, baax na yadul la ala tegtalee njaboot gu ba tey te barkeel dafa am ñu ñëwee Sénégal euh, magam bu góor wala rakam bu góor daal mu ne dafa gis fa mu nekk daal ay jëm ci ko it neen dafa neen gis boppam ci biir avion avion bi dinaaw am as soxobo lii di biddéew jant weer ak niir wala di ko wax ni boo gisee muy jóge ci ko wàcc jëm si ci suuf ci ko jigéen yi bu mooy yàlla mën na ko may njaboot gu barkeel yàlla mën na ko mayit doom joo xam ne ji yumkin an yakuna hada al ibnu fi l aalam sawaan an yakuna mashhur fi ddin aw mashhur amma yataanaq an umuri dunia mën na wala ku siiw ku ñu dégg turam ci wàllu àdduna nañ ci bàyyi xel amma taaira nafsu taaira ida taarat min al ala min al asfal ila al ay ida taarat fi al marati avion boo ci duggee mu naaw ci dundu dama bi ci gën a mu war a jóg te jógul mu war a naaw te naawul te amul yow su ko defee nag sarax yi ngeen di diggal ci loolu ñam ceeb yooyu baax waaye liñ ci liñ ci sopp lool mooy ak xeeti ñam bu mu mën a doon rek na nekk na sell na baax ndax ñi koy jëfandikoo buñ koy jëfandikoo ndax neex ga muy neex ak jëfandik jëfandikukaay ba fiihi ijaabatu min kulli daawa ci la aaju gu faju nekkee war nañ ci bàyyi xel kii nag mbokk mi ne dafa gént doomam pantalon raat anna ibnataha labisat maa yuqaal bil arabiyati sirwaal wa fi daaxili sirwaal maa yuqaal addiidaan gis nga mbokk mi nee na doomam bu jigéen dafa sol pantalon waaye ci biir pantalon dafa gis biir pantalon bi euh, bokkul ak euh, beneen bi it ne dafa sax yi ba tey di génn ci yaramam sax yu sew yu bari gis nga mu bokk ci ak moroom muy pantalon nga sol ko ay sax di ci génn ak yaram xam ne ay sax di ci génn am muxtalifay ni fil xulmi wa sanaati bi bayaanihima insha allah bu njëkk bi pantalon ci jigéen mu di ko sol suubatun wa mushkilatun kabiratun min jigéen pantalon ci jigéen xat-xat la koy jural mën na ko jëwa xat-xat ci wërsëg mën ci wàllu du lu gën daal pantalon ci jigéen fi lxulli taabun wa mashaqatun yoqun shadid baaxul ci jigéen gi sax yi cay génn nag donte solul solul woon euh, pantalon la kaana xayran anha su solo woon fan pantalon ci la doon gën ci moom su fekkente ne nag sax yi dafay génn rek ci yaramam te solul pantalon wa hiya bi axsani xaaliha ñu ngi ci colin gu rafet ay saxit di génn ci yaramam sax yi sax bu génn ci yaram rek soo am baatun tataxafafu shay'an fa shay'an fi xayaati insaan gis nga xat-xat yi wàññeeku la ci dundu doomu yaram bokkul ak bi nekk ci biir pantalon bi muy génn du ñu benn ah, beneen bi mbokk mi mu gént lu bari daal di ko couche eh, ci biir loolu nee Eh, gis ne day gis muy dem ginnaaw kër ak yu mel ñaareelu laaj bi eh, di nit ci guddi moo xam bu fekkente ne tiflan saxiir xale bu ndaw baax na mais su dee mag xat-xat la couche nag dafa bokkul dara ak gént ay dem àll ba dem àll bay guddi nag moom alal la ah, alal ju bari la baax na su la taqee alal la soo ko dëggaatee alal la lu baax la wërsëg la ala kulli xaal am couche dafa bokkul dara ak loolu xale bu am bokk ci waaye bu dee xale daal moo gën ci moom ndax bu dee mag yu addi ila soabatin adida fi xayaatihi day indi xat-xat yu tar ci ku kii que euh, góor gu mag amul yiw euh, beneen bi mbokk mi nee na dafa waaye kurus gi matul mu mel daf ko ñu ne ko trente mille francs la xam kurus ak julli kilaax ma ala xaddi sawa التسبيح في الحلم إذا تم خير إنما فيه خير kurus guddi buñ ko nasee ba mu mat peri adat bañ ci soxla yi bu bari la waaye su woote woon sànq waaw ci affaire kii bi barbeek yooyu mm-hmm. waaw noonu laa ko géntee woon mm-hmm. léegi beneen bi. Mhm. damaa tëdd après ba guddi sama jëkkër ex yi ma gént ko moom mu ñëw mu ànd ak doomam bu am ñetti at. Mhm. yére yu bëri yére yu mu indi xale bi moo ko moom mais yére yëpp a. mu ne ma yow xam nga lu tax toggoo xam nga togg moo gën jënd lekk ma ne ko waxoo ma woon ne dangay ñëw. moo tax. Mhm. mais après tuuti ma gëstu gis ñaari bool yu ñu teg mu nekk ceebu keccax bu xonq ni ñi toog di lekk ay xele beneen bi feesul woon noonu ay nit après man ma ñëw toog ci biir tibb lekk loolu lu ceeb ceeb bu xonq ceebu keccax mm. après ma xëy yeewu mm-hmm. tey tey ci guddi tamit gént naa man ak sama jëkkër ak sama wujju ak benn wujju peccorgo mm-hmm. ñoom ñu toog man ma yeewu ñëw romb leen nuyoowuma après sama jëkkër tëb rek xuloo ak man wax wax ju ñaaw daal ba bëgg maa dóor mu yëkkati loxoom rek après mu téyewaat ko sama jëkkër waa moom moo doon xuloo moom moo doon xuloo ak man ci guddi gi noonu ci gént bi léegi yëkkati na loxoom ba bëgg maa dóor mu téyewaat loxoom bi ñee ñu nekk foofu di reetaan sama wujju ak sama wujju peccorgo bi mais man ma dugg sama néeg noonu ma noppi. bu bu weesoo loolu man li ma jaaxal trop trop man toujours damay gént ma lekk dafay am lu may àndal comme genre nit ñuy wax nii ba mu yëkkati benn affaire jox ma ma lekk. Mm-hmm. su ko defee man su ma xëyee su ma ci tegee ñetti fan wala bu ma xëyee rek dinaa gis deret. waaw loolu nekk na lu ma jaaxal trop ci loolu laa. saa saa lu arrivé boo xëyee da gis deret. su ma ko gisul ci suba si ñetti fan ñeent ma gis ko. waaw. yi sama yaram bi day tàngu guddi surtout biir bi day tàngu comme safara sama jëkkër sax daf ma koy wax xaw ma lan la. waaw mhm. waaw. baax na laa doon laajte jërëjëf. yéen ci ñëw léegi incha allah shukran. seen axlaami incha allah ñu ngi fi ñu tolloon sànq ci mbokk mi di laaj mbirum mbirum eh, kurus nag comme sànq rek bu matee baax na su matul baaxul ka salaati fil xulmi asalaatu ida kaanat kaamilatan fi lxulmi fa fiha xayrun azim wa in lam takun fiha xayr julli guddi la su matul nag jàppal ne xat-xat la moo xam manqué na ci rukoo ba wala ci sajda ba wala ci yeneen ak yeneen waaye wa ala kulli xaal asalaatu atta attaamma xayrun min salaati naaqisa fi lxulmi julli goo xam ne gi daal dafa mat sëkk moo gën ci gént julli gu wa kazalika a tasbix kursit noonu la mel su su nag ma fi dalika xayrun amul yow nañ ci bàyyi xel ñu fàttali askan wi 88 628 22 22 88 628 22 Sénégal waa bitim réew mën naa lañu 221 33 840 nuñ ci wittoo bu ñu ànd ak ñoom ci numéro yi dañ ci indi ay bayaan euh, ñi ñëw ci mbokk mi woote mbokk mi ne dafa gént gént ko jaaxal moom it dafa gént euh, jëkkëram ñëw ak doomu yor ay yére gis na ni bu ñëwee ko laaj nekk lu tax toggoo lu tax toggoo añ wala toggoo lu ñuy lekk neneen ci ginnaaw gi gis na bool yoo xam ne dañ ko teg foofu te bool yi ceeb ñoo ci nekk ñaari bool la yu def ceeb ne eh, ceeb bi nag ceebu keccax la comme ni mu ko waxee nee na ñu lekk ci ñoom ñaar nit su ñëwee ak doomam yor ay yére ànd ak doomam wala mu ñëw bokk ànd ak doomam yor ay yére ñu day yére xale baax na ànd baax na ci gént so yére it yiw la xataa bu indaale woon leneen lu dul ay te moom xayrun azim fi ma baynahuma amaa nag ñaari bool yi nga xam dafa def ceeb ceebu guddi moo xam bu xonq la moo xam façon ceeb bu mu ci gént su dee bu ñu togg bu pare rek yéexi yéexi wërsëg la soo ko lekkee la wax ne balaa nga ci jot dana metti wala boo waxtu waa nga koy xaaree du ñëw ci woowoo waxtu wala ni nga ko bëggee it du tëddee noonu mooy ceebu jën wala bu weex wala leen ceeb yépp ba di ko jëfandikoo taaxurun ama yataallaq an xusuli rizqi an say mbir bu dee ñëw dana xaw a tuuti bu dee bu dee sotti dana sotti waaye mën na am euh, ci jamono ja nga ko bëggee wala ba nga koy xaaree du jooje jamono lay sottee muy ceeb bu ñor bu borom di lekk nañ ci bàyyi xel beneen bi ne dafa gént di xuloo ak boroom kër ba ay wujjam di ci reetaan التقاسم بين الزوج والزوجة يدل على تداوم تفاهم عظيم فيما بينهما gis nga cante sunu xuloo yiw sunu xeexee yiw la sunu dóorante su kenn gaañee maamam ci biir gént gi yiw am tax ko fil xol mi ko miraaran nga xam ne dañoo toog di reetaan rek nag muy ñaari wujjam yi benn baaxu ci maa fi dax ki xayr dinañ ci. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. rahmatulah waaw sëriñ mi dama bëggoon participer. bisimilah. waaw man dafa am lu ma géntoon. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. bët yi. Mm-hmm. waaw dama géntoon sama euh, borom kër euh, nekk ci biir waañ bi ak sama doom bu góor. ma yeewu nii ci xaaji guddi di dem ci waañ bi fekk leen ñoom ñaar ñu yor benn xar bu ñu rey. Mhm. fees ko ba pare. Mhm. waaw fees nag ñoom ñu tëral ko ci suuf. Mhm. sama doom góor jël jaas yi di gor ci côté baat bi. papa ji téye ñaari tànk yi ci gannaaw. léegi bi ma ñëwee ma naan ko waaye yéen nan ngeen di def nii. sa borom ko lu muy indi xar. waa xar bu ñu fees man daal xar bi dama gis ñu fees ko ba pare. waaw dama dugg ci waañ bi ci guddi ma fekk ko moom ak sama doom bu góor sama doom bu góor téye ci côté baat bi. Mhm. baat bi nag amul bopp àndul ak bopp dañ ko fekk mhm. bopp bi new fi moom euh, mu téye téye nag euh, kii jaasi di gor baat bi. que mhm. téye ñaari tànk gannaaw yi di ko jàppale mu muy koy gor. waaw tàgguñu ma yëguñu ma daal ma ubbi bunt bi rek fekk leen ñu koy def man leen waaye yéen nan ngeen di def lu tax ngeen jënd yàpp ak lu xew ak yu demee noonu. ma gis daal loolu daal laa Mhm. bon après falaa yem ci gént gi. waaw mu ci doon laaj daal leeral. baax na dina ci. waaw. shukran ala kulli xaal. mbokk mi soxna si wax ni ay. sa diggante ak sa borom kër juboo la déggoo. bari dina am sa diggante ak moom wa xataa yàlla insha allah bi awnihi amaa nag ñi qulna dalika miraaran addaxku fi lxulm xawfun wa fazacun wa diqun shadid ibnun amiq wa tacabun gis nga reetaani guddi naqar la xat-xat la jafe-jafe la baaxul nit diree baaxul génn dalika ñaar yëpp ñoo bokk benn bayaan maa fi dalika xayr gént di reetaan baaxul xat-xat yu tar lay jural nit yoo xam ni kan xamul fu ñu ko kan xamul beneen bi nee lekk lekk gi rek su lekkee ñam ci ëpp day fartaat saa ba pare rek day gis mbaax mu jaaxal ko lool eh, am na façon ñaan xam boo ko lekkee gis mbaax baaxul baaxul mooy maa fi dami xayrun addamu fi lxulmi xusnun amiq wa diqun shadid deretu guddi baaxul naqar la xat-xat la jafe-jafe la euh, bu fekkente ne saa yoo ko lekkee gis ko jàppal ni borom àndandoo la borom yi xeet yi mel noonu dalay farataal di topp dina yenn saa yi ba dugg sax boo lekkee ñam mu dikkal la am ci yenn saa yoo xam ne soo demee ba yaakaar mu tas ko maanaam bu ñu boo demee ba war a toll diggante mu yàq ko soo demee it ba nga xam ne bii xataa boo nekkee sa boroom kër sax walla sa borom kër euh, annoncé la ne maa ñëw balaa ñëw baax yooyu xeet xeet yu yenn sa gént benn façon te ba guddi mbir ko mu gis baax ci waxtu woo xam ne sa amaana du waxtoom Ah, loolu yëpp dañ ci bàyyi xel te du lu gën waaye nag aleykum salaam sëñ bi ñu gën a jaar bu wér alhamdulilah noonu noonu laajte mooy faral di gént lu bëri mu li ma dàqal ji hmm? waaw wala daal dàqal ji wala ñu ñu ñu taxaw ñu xeex waaw hmm, hmm. mën a xaj. non muus rek muus moo may dàq ji parfois aussi daf may dàq ji parfois ñu taxaw de. mooy mhm. dàq wala. waaw. Mhm. waaw parfois aussi li muy gën gaynde di ma dàq aussi bëri na. segg. gaynde gaynde. waaw. Mhm. ok jërëjëf loolu rek laa doon laajte. jërëjëf shukran xaalaan incha allah su ko defee ñu bàyyi xel loolu muy xeeti rab yooyu dafay sonal fekkente ni farataal di wala mu lay dikkal saa su la sëñ borom kër jege mu wala boo demee ba war taxawal dara ci sa wàllu ëmb mu yàqu ak yi nañ ci bàyyi xel dañu waxoon ne leen su leen di dëkkal da ngeen di bàyyi ba guddi balaa ngeen di tëdd ngeen benn aaya bi ñuy wax muy bismillahi rahmaani rahim wa li suleymaana reexa guduwaha shahrun wa rawaaxuha shahrun wa asalnaa lahu ayna alqitri rabbi wa man yaziq minhum an amrina nuziqhu min azaabi sair ihtiyaat am ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ bi ñu ngi daal bu wér a wér sëñ bi ñu ngi lay leer am alhamdulilah dama amoon ñaari gént yi moo bëggoon a firi mhm. waaw benn bi dama gént euh, sama néeg ma gis fa si ndax waaw léegi après bi ma génnee si ndax bi tamit taxaw ci escalier yi bëgg ma attaqué quoi waaw boobu mooy benn bi quoi léegi beneen bi nag dama am sama benn mag boo xam ne nii moom gaañu na bu yàgg. boo da da damaa gént def benn genre soog benn accident nii sa tànk. Mhm. ba sama deret deret di génn nii quoi. Mhm. mais après mais après man bi ma ñëwee nii si kër gi après moom ma gis quoi. néewam néewam ñu tëral ko nii ci ci diggu kër gi nii quoi mu ñu sàngee ko lu ñuul quoi. Mhm. waaw léegi nag affaire bi jaaxal na trop quoi ma naa ko laaj tey yow yaa def accident bi. waaw. man nag man naa ba ma ñëwee ci kër gi laa laa gis sama mag boobu xam ne gaañu woon na bu yàgg quoi bu jigéen. Hmm. léegi nag après ci laa gis. bu jigéen la. Hmm. waaw ma gis ko ñu tëral néewam nii daal après sàngee ko lu ñuul quoi. a gi nii mais moom ci ginnaaw ginnaaw nit ñi quoi fa lañ ko teg. Hmm. mu nekk foofu quoi ñu di ko seen nii quoi. baax na léegi ci na léegi incha allah waaw baax na waaw incha allah shukran euh, ñu ñëw fi ñu toll woon rab yi ñu bàyyi xel ci ñaan googu muy wali suleymaan rayxa guduwaha shahrun wa rawaha shahru wasalnaalahu an alxitri wa man yaziq minhum an amrina nuziq min azab alsair kal jawaab xudurun raasiyatin wa qalilun shakuru saar la boo xam ne bi benn daf lay dim xeeti xeeti rab yeeg yeneen yeeg yeneen aleykum salaam wa rahmatullah soxna si ñu ngi ziar ñu ziar bu baax alhamdulillah nga ñaanal yàlla mu ne tonton dama am gént ci ma ñaari gént ci ma géntoon bëgg la ko laaj. benn mm-hmm. ma géntoon nekk ànd ak sama waa kër ay xale daal ñu nekk sama ndijoor ak sama penk ak sama càmmoñ. ñu dox ba si yàgg ma penku yëpp bi sàkk ma daw yëpp si ne sama waa kër ñu ne aw soow bi. bi. waaw ma ne xale yi ñu leen daw ñu ngi ñëw ko aw yoon penk soow bu ñu nekkoo soow soow bi yëpp ñuy géej te bu nekk dafa fàq pour ci ma loolu tourné waat nekk euh, sama côté droite beneen côté bi mu def noonu ma defaat benn côté bi mu def noonu ba ñeenti xam ma jëm ma jàkkaarloo waat ak penk bu njëkk bi fi fi géej bi jëkkoon jëlee. Mhm. après euh, euh, mu dikkee. mu sànni ndox bu bëri mu ñëw ba sama jeune wàcc pour delluwaat jëli élan pour dellusiwaat ci lii ñoom ñu ngi ñëwaay egg seegul ma daal ne ma taxaw daal ne ay waay benn jàmbur jaa ngi dee ku ndox mi am benn voix bu jóge ci wax ma ni ma euh, wër Sëriñ Tuuba te wër Sëriñ Tuuba dama la dimbali ma wër Sëriñ Tuuba ñetti yoon ndox mi daal di mu am lu jóge ci ko dóor ndox mi ndox mi séparé wu. ñu mm-hmm. séparé woon nag nga def benn yoon bu gudd ci seen diggante ñu ma jaar foofu jàll. Mm-hmm. loolu bi may jaar di jàll ndax séparé wu na mais ñu tibb ci kaw du may wax. Mm-hmm. waaw su mënoon a duggaat gën a continuer ci li euh, ba gént gi maanaam hakada takunu li xulman wal xulman wal xaqiqatu miraat yara fiha al insan xaqaiqu damirihi allo waaw bismillah allo allo salaamaaleykum waaw xam naa dina àndaata ñun ci kanam tuuti laaj yi xaarandi ñooñu ci li alxulm sati aqsaam fi xayaati l insaan al xaadiru wal mustaqbal gént toujours day ñëw ci ñetti xaaj rek ci dundu doomu aadama allahu alam li passé di ñëwaat la wala li ngay dund li ñëwagul waaye lenn lu ci maa fihi xayrun laka wa lépp loo xam ne yàlla mën lépp safaan yàlla wan na ko mu bokkul dara ak ak ak ilham ilham axar ma yataallaq an ilm sanaati bihi incha allah ñëw fi ñu toll woon léegi ci laaj bi Euh, mbokk mi moom nee dafay gént li ko jëkk euh, benn bu jëkk bi wax mbirum ñiy reetaan ñaari euh, moom jëkkëram yor ñaari xar wala boog benn xar ñu ko daggat ci baat bi maanaam xamul daal dafa ñëw rek fekk leen ci noonu xam euh, loolu moo ko jëkk jaaxal mooy xar boo ñuy fekk ñu koy rendi xar mi rendi xar mi ak fees yàpp yi di génne xar mi am rey ni muxtalifay ni am xar di ko rendi sadaqatun wa xayrun sar yiw la sarax la lu baax la amaa nag allaxmi bi nafsi laxmi yàpp guddi nag moom bokkul dara ak xar mi laxmu fi jismil insaan yàpp guddi moom wéradu yaram la bu tooy ba wala boo lakk ba wala bu mu ñor nga di ko jëfandikoo maa fi zaalika xeyr su ko defee ñu ñëw ci suñuy der mooy bi mujj mooy ki nga xam ne ki dafa gént muus mi mu di ko dàq ak gaynde gi gént ci gént gaynde moom yiwu bari la nañ ndax gaynde dafa am solo yiwu bari la xéwal la ngi ci nañ ci bàyyi xel waaye dañuy jégg waxtu wi xat wi ñu dab suñu coobare waaye waa ala kulli xaal dañuy ñaan yàlla ko euh, suñu manquele dara ci ajuma ji ñaan euh, bi axsani alwujuhi wa ma zalika ala allahi bi aziz ñu jàmm ñi mbokk yi nga xam dañuy bàyyi xel saa su ñu ngi ziar Adjamati Ba Souleymane Ba Khadijata Sam Malick Ba Mouhamadou Mbaye Medina Mbaye sant euh, sant yàlla Ndiku Fall Adja Ndiku ñu koy ziar ak borom këram Adama Ndiaye di ziar Makewe Diop Ndiaye Sarr Amath Tidiane Niang ba Mauritania ñu ngi Mansour Sarr Mame Youssou Massamba Sow Abdourahmane Mbacké ci dara ak Salif Diallo Afrique du Sud Rose Adja Rose ci France Alaaji Jaxabi Moustapha Gaye ñoom leen di ñaanal jàmm fu waay mën di ko ñaanal réew mi di ko ñaanal ay sayyidul wujud allahumma rabbi ya ilahi laa yantahi ilayka basaru naadirin fi majdi jabarutika ilahi an sifati almaxluqin sifatu qudratika ya allah wa ala an zikri zakirin rahmatika ya allah fala yantaqis ya ilahi ma aradta an yazdad wala yazdad ya ilahi ma aradta an إلهي لا أحد شهدك حين فطرت الخلق يا إلهي ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس إلهي كلت الألسن an tafsiri sifatika yaa ilahi wan xasarat alcuqulu ilahi an kunhi macrifatik fa kayfa yusaf kunha sifatika yaa rab li Muusa idrib bi asaaka albahra fanfalaxa fa kaana kullu firqin ka tawdi alazim salli wa sallim salli wa sallim ala ayni zatika alaliyati bi anwaa kamalatika albahiyati fi xadrati zatika alabadiyati ala abdika alqaimi bika minka laka ilayka salatan وتعصير وتقضي لنا بها جميع الحوائج ولا تزال تكون ولينا إلى أن تنتهي الحياة فنعم المولى ونعم النصير يا ربي أن تكون ولينا إلا أن تنتهي الحياة فنعم المولى ونعم النصير إن الله عليه وسلم تسليما sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima ya rabbi ya ilahi salli ala sayidina muhammadin alfaatihi والخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين